seydi la wali naam wa seydi la ay waay xiri naam onze billah bisimilah inna waliyallah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw mbokku taalibe yi mbokku internet Tacko TV comme ni ñu koy defee saa su ne rek ñun ak yéen ci biir diwaanu Baye Fall ak Baye Fall bi tey ñu ñëwaat fii nga xamante ni si mooy diwaanu Masalikul Jinaan ci biir gàmm gi ba léegi bu nee gàmm na Seydouna Mohamed bu nee gàmm na Seexul Xaddim bu nee gàmm na Seydina Limaamu bu nee gàmm na Baay bu nee gàmm na Seexul Tiijaan kon gàmm maanaam dafa yaatu tey ñu ñëwaat fii fii ci diwaanu Masaalikul Jinaan gàmmu gi nag gis nañ Masaalikul Jinaan ni mu mel doy na waar dayoo bu mu toll ci nit ñi dayoo bu mu toll si tolluwaay tey ñu ñëwaat fii ànd ak seen mbokk internet Tacko TV fa yéenee couvrir li nga xam ne moo xew ci gàmmu Masaalikul Jinaan jëlal leen image yu doy waar ci ruq yeeg ruqaan yi jëlal leen lépp di leen ko wan tey nag ma ànd ak sama cadreur bu doy waar bi nga xamante ne si mooy Maodo Ndiaye moom la ñu àndal tey ci biir diwaanu Tacko TV. ak mbokku ami internet yi yi ñuy suivre ñu ngi leen di bëggee di leen safoo tey nag ñu ñëwaat fii ci diwaanu Masaalikul Jinaan ci gàmm gi dañuy daal di ànd ak yéen rek ci biir gàmm gi jéem a dugg ci biir xool maanaam li gars yi di doxee Hizbut Tarqiyyah ñuy kuréel kon bu ko defee dañuy daal di egg si biir ak Maodo Ndiaye jéem a xool gars yi nuñ toogee jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëfe borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon ni ñu ko defee saa su ne rek ñu ngi fii ci diwaanu Masalikul Jinaan ci gàmm gi ba léegi ñu ñëw fekk fi sunu papa ci biir gàmm gi dañ koy laaj rek mu wax ñu maanaam taxawaayu gàmmu Masalik ak lan mooy wareefu gàmm dëgg dëgg dëgg lan moo tax ñu naan gàmm parce que gàmm gi bu ñu xoolee gis nañ ñi ci Serigne Touba Cheikhul Khadim mel fii ku fi ñëw da yaakaar na yaa ngi Touba doy na waar Masalik ni mel ko nit maa rajo mus yi kon bu ko defee saa baay dañ lay jox kàddu gi rek nga wax ñu maanaam taxawaayu gàmm fii ci Masalik ak lan mooy waree fu dëgg dëgg dëgg dëgg. jërëjëf jërëjëf man la El Hadj Samba Diaw man maay coordonnateur Masalikul Jinaan euh, waaye daanaka yow wax ko ko daanaka question boo ma posé la ba pare tontu ko tontu ko bi mooy euh, boo gisee kuréel yii ak mawlud bi ñuy yëkkati nga xam ne tey jii bis bi la bis bis bi gën a màgg ci bis yi la waaw la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tey jii tey jii. 24 yeeg décembre yi ak 31 décembre tey jii lii rek tey rek tey rek la waroon nekk waaw boo gisee nii ñu rafetal ko ak euh, jeu de lumière yeeg lépp ñu teg ko maanaam bis bii amul jëkk sëñ Tuubaa bu daan bu daan jege si da daan ñëpp dañ ko daan sibooru ndax ndax ndax mbégte gi mu daan génnee ñëw di génn ci biti di waxtaan ak nit ñi di ñuy xelli kafe gi ndax maanaam li mu li mu li mu tagg sangam bi tagg ko sang bi ci ci ci lii ñuy nekk boole ci nag lii ñuy gàmmoo muy xasaay di lépp lépp lépp lépp lépp ay tagg la ak i kañ kon bis bi ah bis bi du bi dara bis la boo xam ne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp buñ ko xamoon buñ ci taxawee sunu lépp dana baax fii baax fee sëñ Tuubaa min gëm nag euh, moom daa àndoon ak jàmbaar ji moom ndax yoonu géejëm gi xam nga xam nga xam nga ci dégg rek metti woon na waaye ndégal la bu yemoon jeewal jeewal jeewal mënoon na faa yem ba ñeeku waaye kon du neex nee naa leen yoon wi c'est un message boo xam ne war nañ ko décortiquer waaw ba xam ko bu baax a baax a baax a wax wéetal wéetal wéetal wéetal boromam. wéetal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kennal ko wane gën ko wone mooy yoon wi moo tax guddi gii ñuy célébrer boo ko seetee ba seet ko boo toppee yoon wi rek da xam ne sunu jàmbaar ji kenn du moom kon ndigalu sëñ bi rek ci la ñu nekkee sëñ Muntaxa euh, mu wàcc ci alaaji Mbàkke yu fay euh, ni ko sëñ bi daan defee njaarim rek noonu noonu yi noonu yi koy defee gis nga kuréel yi waaye yemuñu ca kuréel yi euh, lépp loo xam ne bernde la ay xéwal la fi nekk tasaaroo na tasaaroo na ci ci ci ëtt bi ndax fii daanaka dañ ko dañ koo dañ koo duppee rek ca Touba Masalik xam nga ne boo ko seet dañ koo duppee ca Touba ne li nekk fii daanaka moo nekk ca gannaaw te fan yi di ñëw xam nga ne euh, euh, sëñ bi moom. Euh, projet deuxième phase Massalikul Jinaan daan ko tegaat waaw muy institut islamique bu mag boo xam ne lépp léppay nekk ci biir njàngale sëñ Touba njàng kii ak umma islamique bépp mën nañ faa kii ak nag kër sëñ Touba ak yëpp dana war a am ca gannaaw donc pareegunu les grands chantiers de Massalik commencé na am nañ nag ay barkeelu yoo xam ne yëkkati nañ ko pour nit ñi di ci mën a barkeelu ay ticket yoo xam ne ndax euh, Massalik bii kenn tabaxu ko. taalibe sëñ Tuubaa yi rek ñoo ko tabax benn financement extérieur dugg ci benn financement extérieur yow la man la moom mii la sëñ cameraman donc ñun rek la kon nañ ci góor góorlu li nu moom mooy alali sëñ Tuubaa la ñu ngi ci biir sëñ bi sëñ bi moomaale nu ci loola góor góorgóorlu te jàpp xam ne léppay baax guddi gi nag guddi gu spécial la loo ci jaamu yàlla fulal la ko te ñun am na nañu contenu contenu bi mooy li sëñ Touba wax rek ca la ñuy yem jërëjëf jërëjëf. Tacko TV ñu ngi leen ziar di leen jox ceeb di leen jox waa ci waay di leen xamal ne li ngeen def seen warab la bu ngeen ko defee lu leen war la bu ngeen ko def lu leen war la te wax dëgg yàlla laylatu mawlidi nabi la nox laylatu ma wiriya bi laylatu ma wi taxa bi wa tonri si taxa sunu guddi gi yonent sallallahu alayhi wa sallam la ñëpp ñoo ko war a màggal dégg nga ne ko sëñ Tuubaa riime ci eh, ci muxaddimaat am eh, ci ci gës bu xulóob man fa man yuazim mawlida nabiyuna babil huda fala yuazab xada faxtar min yuazim nee na eh, nee na képp guddi gàmmu képp ku ko màggal suñ borom wàccuwaayam la ci jox dem ba defal la ci dërëm boo ci joxe bi dirhamin aw lahamin nga joxe ci suukar bi suukarin aw lahamin wala bi xadri dirhami nga joxe ci suukar ñamu saf suukar wala lu mel ni ndawal wala dërëm ah, ay tuyaay way tuyaa ba ñu ngi fi yoo xamante ni maanaam ko ko doon faram-fàcce fi ngay fanaan waaw ñun nag dañuy sant yàlla bi ñu eh, di junni julli jënante bi ji sant Serigne Touba si Ahmadou Bamba Khadim Moustapha di nuyu sunu jëwriñ ñi fi nekk ñi nga xamante ñoo nekk ci barab bi di sunu jëwriñ Alhaaji Mbacke di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan loolu yu ànd wér yu ànd kàttan waaw man nag dama nekk ndongo boo boo xam ne maa gën a xeebu ci daara ji waaw wax dëgg yàlla maa ci gën a xeebu it gën cee néew xam-xam ndax ñii ñëpp dañoo baax ñii ñëpp samay jëwriñ la ndax wàllu organisation Serigne Mbaye Touba moom moom moo ko jiite man moom damaa doon ndongo moo xam ne dañ maa jiite ci discipline ma ko sax wante xam naa ngir jéem jéem ma cee nàmmatal ci ci euh, ab yar ak taalibe moo tax xam naa ñu ñu ñu tasal ma ci. leen siyaar bu wér. jërëjëf macha allah na solo kon bu ko defee dañuy laaj beneen mbokku taalibe rek jëriñ ñu ngi siyaar bu wér di la laaj maanaam sa taxawaay ci gàmm gi ak gàmm gi nu ngeen ko taxawoo boobu ba léegi. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax a baax di kontaan ci seen teewaay fii ndax fii moom Masaalikul Jinaan la. tey mooy mawlid guddi laylatu mawlidin nabi nga xam ne sunna la pour ñun ñu di ko màggal tey ñu koy defee fii ci Masaalikul Jinaan ñu ñu di wax ak yéen nag ab donga lañ ci biir daayira xidma bi nekk ci Masaalikul Jinaan doon daayira boo xamante ne nii daa bëgg ànd ak waa àdduna gépp liggéey sëñ Touba fii ci jumaa ji yéen tamit seen ñëwaay bi ngeen ñëw fi rafetlu nañ ko lool bu ko defee nag fii moom dañ fay nekk di ko màggal ci jàng alxuraan ak xasida ak bernde bernde nag lépp lu daggan ci rek fas yéene nañ koo jël di ko bendeel mbokki taalibe yi fii lépp lu di xasida yu sëñ Tuubaa ta bind ngir ra neex na lool ñu jàng ko ci guddi gàmmu fas yéene nañ koo jàng fii ndax kuréel jaysun gi moo toog comme ne ko sëñ Tuubaa daan defe fa njaareem def ñetti jataay ba ñeent jataayu mawaahibu jës bu bu ak muxaddimaat ak ñuy jàng barsan noonu lañ ko commencé di ko doxal noonu lañ ko fas yéene fanaane ba guddi gi lépp doon jàmm ak salaam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ñaani télé bi suñu borom yëkkati ko ba mu doon tele bu mag a mag fu ñuy dégg yeneen télé yi rek ñu di ko fa dégg rafet nañ seen teewaay bu baax jërëjëf jërëjëf comme ba léegi rek ñu ngi leen di kontaanee di leen bëggee saa su ne saa su ñuy ànd ak yéen ci seen biir mboq internet Tacko TV di leen bëggal saa su ne bu ko defee dañuy ànd Modou Ndiaye ñu daal di jéem a dugg ci biir jéem a xool gars yi mbokk taalibe si biir. jërëjëf borom Touba ba léegi rek ñi si biir interview yi di laaj mu mel ne dañoo ñëw fekk fi soxna soo xam ne dafa nekk ci liggéey bi moom tamit gis nañ ko ci commission bi la bokk. yaay booy ñu ngi lay siyaar di la laaj sa wàccuwaay ak sa taxawaay ci biis bi ak bis bi ni ngeen ko taxawoo ba mel nii ndax ñëw nañ Masaalikul Jinaan mel ne Touba ci gàmm gi ñu leen di laaj nañ ngeen def bu bis bi mel nii ci gàmm taalibe yi ak mbokku jullit yi si jiital Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér naka doon itam laay ñaanalee euh, Serigne am ne Modou Mbenda mu yàgg fi loolu te wér ci barke bi Cheikhul di ñaanal bu baax suñu Cheikh Jëmb Fall mu fi bàyyi ko bu yàggul yàlla suñu borom yokki leeram yooyu ñëpp siyaar ñëpp nuyu itam jëwriñ fay mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne bi fii ci Ndakaaru di siyaar ñëpp macha allah ak waa daara xidma Masaalikul Jinaan yëpp macha allah waaw suñu taxawaay ci bis bi mooy euh, man maay soxna Yacine Bamba Mountakha nekk ci commission accueil nekkal fii soxna Aïssatou Ba dafa génn moom mooy jooruñu accueil waaw sant yàlla rek sant Serigne Touba baax a baax bés bi ñu ngi nii ñi lañ ko waajalee comme ni gisee nii rek ci alxuraan beeg xasaayit bi ak euh, julli ci yonent bi def ay salaatul ala bi def tamit ay berde ngir jox ko jaam yàlla yi nga xam ne ñoo fi ñëw mel ni daayira xitma Masaalikul Jinaan bi nga xam ne ci laa bokk tamit macha allah am nañ ci taxawaay bu am solo ndax ñun ñun ñoo yor lépp li nga xam ne mooy organisation jumaa ji ñun ñooy setal jumaa ji ah, ba tey tamit maanaam ñooy nekk ci sàppe yi àjjuma bu jot ci côté soxna yi góor ñi nekk ci côté góor ñi gàmm yëpp ñi lañ koy defee dañuy nekk ci li nga xamante ne mooy programme bi ñu séddale ko nag diviser ko def ko ay commission commission am na accueil am na organisation am na commission discipline commission yu bari la macha waaye yàlla dafa dogal nag ñun chaque année rek ñun ñooy commission bi nga xam ne ñun ñooy gérer biir bâche bi am na nag ñoo xam ne ñoom ñooy servir mais macha allah daal waajal nañ ko ci anam yi mucc ayib macha ñu ngi koy dundoo ci ruux ñu euh, am solo yoo xamante ne ñu ngi bi laaj rek ñoo ngi ci daal macha allah. waaw comme Mor Ndiaye ni nga ko waxee lépp lu bis bi laaj rek ñoo ngi ci mu mel ne bis bi gis nañ taxawaay bi ni mu yembee taxawaay bi maanaam ndax sonnoo leen ci ak nan ngeen def taxawaay bi ba mu mel nii bis bi. xam nga maanaam li ñu ko yàgg a def yàlla amuñu ci benn coono parce que yaakaar naa ay ati ati nii ñu koy def min nañu liggéey bi xam ne ñu koy defee kenn ku ci nekk xam nga li nga xamante ne mooy sa liggéey maanaam xam nga fi la teg xam nga li nga war a def na ñoo xam ñu ngi ci euh, mbirum servir bi am na ñoo xamante ci base bi xam nañ fa ñu war a taxaw maanaam ku ci nekk rek xam nga lan mooy sa parce que liggéey bi yàgg nañ ci amuñu ci benn difficulté xëy na au début xawoon na kii tuuti waaye ni loo xas a miin rek te liggéey sëñ Touba moom bi moo ci moo koy defal boppam daanaka dañ ñaan sëñ bi moom mooy gàtt coono gi bàyyi jóg faj bi amuñu ci benn jafe-jafe daal sant sëñ Tuubaa rek macha allah. waa mbokk internet yi di la suivre muy Tacko TV waa Tàkku TV xanaa ñu leen ñaanal ci kaw ci kanam rek ci barke Cheikhul Khadim tànk yi ngeen sëkk ba ñëw fii ci biir jumaa ji ngir eh, dundal guddi mawludu nabi guddi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne bu du woon ak moom dara du am Serigne Touba yaakaari jaam ñi wax ci moom lu ko kenn waxul di jëw di ñam di lépp ñu leen di ñaanal rek balaa ngeen déwén yaa na yokk ba yokk yaa na def ba am télévision boo xam ne foo ay tool daf leen di seetaan en direct i allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci barke Cheikhul Khadim. jërëjëf maanaam di ko jaajëfal ci woyofam wax dëgg fa yàlla ndax lii bu ñu defal woyof tey moo mën lii rek kon dañ koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm. asalaamaaleykum yaa xuraatul xeeli asalaamaaleykum yaa axsana sifaat asalaamaaleykum yaa jal mawhibaat asalaamaaleykum yaa rukna salaax asalaamaaleykum yaa daaci alfalaax asalaamaaleykum yaa nuura salaax السلام عليك يا رب الصلاح السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا أفضل الناطق السلام عليك أيها النبي والرسول السلام عليك يا أبا البنون هذا كثير الطرف غير المصطفى الأقدام مما حملت المقاري والعذاب وتوالت مشي الكواكب أمطر ولد المصطفى وحق الخلال هذا وقد استحسن القيام عند ذكر المولد الشريف أئمة الكون غاية الأولوية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية ملاكه ومرماه فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية ملاكه ومرماه وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرماه عطي اللهم قبره الكريم بعرف شديد من سلاة وتسليم عطي اللهم قبره الكريم بعرف شديد من سلاة وتسليم عطي اللهم قبره الكريم بعرف شديد من سلاة وتسليم عطي اللهم

وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل depuis bañ ko dooree ba léegi maanaam lan lan la ci mbokk taalibe yi jëf ba gàmm gi toll nii mu toll egsi mu egsi lan la ci war a mën a jëf ba yegsi nii mu yegsi ah, lépp dama koy delluwaat sëñ bi ndax euh, dama naan ñun defuñu si ñun defuñu si dara ndax sëñ bi képp ku koy liggéeyal li liggéey sëñ Tuubaa képp ku si jàpp day dem ku si jàppul day dem nañ si jàpp maanaam mu defaru mu jekk ñun ñu jël maanaam sëñ Tuubaa képp koy liggéey da lay yombale liggéey bi moom moo la koy yombale ba mel ni yow yow yaa ko sottal mais moom mooy euh, maanaam liggéeyam képp ku si nekk rek moom moo lay sottalal liggéey bi mu mel ni yow yaa yaa def liggéeyam mais moom moo ko def bàyyi laak sag bi nga def loolu lañ ñuy awoon lu ñuy wax jërëjëf Diori ñu lay bàyyi nga dellu ci liggéey bi parce que fi ñu toll nii xam naa ne amoo temps comme ni ko waxee rek chaque jour dañuy jaajëfal jëwriñ mbakk yu fay nga xam ne moom mooy jàmbaaru Serigne Touba ji kenn moom kenn du moom dañ koy ñaanal rek sëñ Touba guddal fanam yokk taxawaayam. tey ñu ngi ñëw fekk fi soxna Ñaaja mu sol laxasaam dama ko gis rek am envie interroger ko parce que dafa saf yaay faal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon bu ko defee soxna Ñaaja dañ laa fekk biir wàññi fi nga xamante ni si mooy café gi. ñu ñëw bëgg laa laaj nag taxawaayu gàmmu Masalik maanaam nu ngeen taxawoo gàmmu gi tey ci bisu Seydouna Mouhamed bii nii kon soxna Ñaaja dañ lay bàyyi kàddu gi rek nga wax maanaam sa taxawaay maanaam ci gàmmu gi. waaw di ziar ñëpp ci guddi yonent bi ndax euh, bu ñu dundee ba taxaw fii di séddale kafe grâce yonent bi kon amuñu lu dul di ko sant mënuñu nag waaye ñi ngi jéem ñi ngi jéem daal ngir lu koy bégal ndax ñun amuñu lu dul bisi gudd yonent bi ndax yonent bi mooy suñu lépp bu ñu dundee ba mën a taxaw di jaamu yàlla di def ay yeneen ak yeneen xalaas yonent bi la kon juru bésam kenn warul nelaw lu dul di ko santle yàlla yonent bi ak di bendeel nit ñi di def ci bànneexu nit ñi ndax ñun loolu lañ fi am amuñu leneen lu dul lii ñii mooy suñu bis ñun ñëpp koriteeg tabaskeeg 31 décembre lépp bis bi dara gënu koo rëy si ñun fàllu moo tax ñu ñëw fi di jéem di sàkku ngërëmal yonent bi lii mooy suñu teewaay ci bis bi. mu mel ne lii mooy seen teewaay ci bis bi ñu ñëw maanaam fekk leen ngeen taxaw ci anam boo xamante ne si ku ko gis sa xel day dem Touba mu doon anam maanaam dugg nañ ci biir fekk nañ mboq taalibe yi ñu fa taxawee génn nañ fi fekkaat nañ mboq taal bi mu fi taxawee dañ doon ñibbi sax ma ñëw seen la mais ku la seen rek sa taxawaay maanaam da ngay ñëw am envie interroger la tey ñu mel ne bis yi maanaam dañ ci daan gis ndaw ñi feneen mais léegi ndaw ñi dundatum saayir si léegi dañuy dund ku tedd ki ñu tey jii bu bis bi yeggee fii loolu leen di wax ñoom. waaw Baye Mbène wax nga lu am solo ndax réew mi toj na. kenn xamul ñu ngi naan mujjum jamono lañ nekk zaayir bari na waaye si bis bi ak guddi gi lañ mën a profité julli yor suñu kurus jaamu ñaan yàlla mu jéggal ñu suñu baakaar ndax nit matul ndax dañuy tooñ moom dañuy waxtaan nit matul daal kon guddi gi lañ mën a am daal profité sant yàlla jéggalu ko sant la daal daal yonent bi daal mooy borom guddi gi. xamuñu loolu guddi bi guddi bi dara gënu koo rëy baak Seydina Mohamed waaw kay di sant sëñ Afia nag waa suñu sëriñ yàlla yàlla yokk leeram ñun moom lañ bëgg moom lañu ñu xam moom lañu miin mënoon nañoo def leneen ñuy def leneen lu bon moo tax suñu morom rek koy def bàyyi ndeen laay la suñu morom rek koy def waaye daal sant yàlla daal ba mu ñu xiiri si lii gën a sant yàlla yàlla xiir ñu ñuy gën a yokku ngir jëm Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom borom bis bi bàyyi mbeen waaw ñoom dama leen di ñaanal seen ni ñuy yóotu ci seen lii ñu am ci guddi yonent bi yàlla ñu leen dégg fu kawe seen jot ngeen kawe ni jumaay Tuuba yàlla mën na lu këpp na bu leen neexoon wër piscine party wala daar kan moo leen yittee lan yéen a ko moom waaye defoo leen ko kon yéen ci kaw ci kanam ci lu baax incha allahu rabbi. jërëjëf ñu ngi koy kontaanee ci kaw ci kanam ci lu baax kon bu ko defee ba léegi rek dañuy jéem a egg laaj góor yàlla bee nga xamante ne moom la nekk ndool ci biir kafe gi dañuy jéem a egg laaj ko mu mel ne Mouride ñu ngi lay siyaar. mu mel ne dañu leen a fekk ci biir café gi ñun nekk fekk sunu mbokk soxna yi nga xam ne ay jàmbaar lañ wax dëgg fa la parce que fu góor ñu nekk ñu taxaw maanaam jigéenal leen tey ñu ñëw fekk leen ci kafe gi ngeen taxaw ci gàmm gi taxawaay bu doy waar dañ ngeen di laaj maanaam gàmm gi naka ngeen ko taxawoo ba tey mu mel nii mu mel waaw waaw ñoo ngi siyaar ñëpp naan bisimilah waaw di santaat bu baax ak côté dëgg Serigne Touba waaw di ñaanal sëñ Muntaxa Basiir mu yàgg fi loolu dëgër di ñaanal sëñ Abo Baraka waaw di ko ñaanal mbokk taalibe yëpp ak jullit yëpp waaw bis bi tamit ñu sant yàlla bu baax bu ñu mayee ñu fekke ko am am taw féexu ne dañ koy dundal waaw ngir ki nga xam ne ne amuñu ku dul moom muy sëñ Tuubaa moom it bii nii mooy bisu sangam bi nga xam ne amul moom it ku dul Seydina Muhammad te lépp lu mu am Seydina Muhammad moo tax mu am ko kon bu ñu yàlla mayee taw féex ñu ñëw di ko taxaw nii waaw loolu am ndimbal la nekkul suñu waaw góor du suñu kattan du suñu doole amaana moom dimbalu sëriñ bi la ñu ànd si tamit ak ay suñu ay tuut tànk daari bi tudd tasawatu si xaar waaw ñoom sii la ñuy yëngu maanaam fépp si sëñ bi di ay bis ñoom sii la ñuy nekk si wàllum berne si waaw sii daal la ñuy nekk daal waaw mu ñëw jigéen góor mag ak ndaw waaw nekk si daal nii te tamit nii lañu fas yéenee dee parce que amaana yombul waaw yow sëriñ bi boole la si boppam rek yombul mais tamit bu liggéey loola yombul kon dañ koy sante bu baax a baax waaw bis bi dina attan na lépp ndax sëñ Tuubaa dégg si ay jamono ba mu nekkee Jurbel moom moo ko doon taxawul boppam bu bis bu ñëwee bisu gàmmu day bàyyi léppam ñi ñiy teewlu xasida moo leen doon xelal kafe ak ataaya ak di ak di leen tur parfum kon ñu nit lii ab taarix la te bis bi kenn war ñu koo gën a bëgg ndax bisu Serigne Touba la waaw waaw noonu la nga demee. mu mel ne bis mel nii dañ gis ndaw si dañ daan dund saayir si mais mel nii gis nañ ni ndaw ñi duñ nelawati lépp dañ koy fanaanee maanaam di sant Seexul Xaddim tey ndaw ñooñu loo leen di gën a ñaax boo amee loo leen dool waaw ndeysaan dafa mel ni sëñ bi taxaw moo wax na ko bu yàggul dafa ne Serigne Touba dafa nangu leen seeni xol waaw ndeysaan te mujjub jamono ji bii ñu nekk nii mu jub jamono bi ñu nekk nii maanaam mujjub jamono yu Serigne Touba la te ndaw ñi dañ see ràññeeku xanaa di leen woowaat rek di leen wax ne amul lu doole mooy liggéey Serigne Touba amul lu ëpp doole mooy liggéeyal yàlla parce que àdduna lépp loo fi gis lu nekk lu dul liggéeyal yàlla loolu caaxaan la te day jeex lii nag mooy loo xam ne ne bu ëllëgee waaw doo ko rëcc kon tamit maa ngi leen siy woo ñoom ñëpp di si woo sama bopp waaw di ñaan yàlla mu waaw mu saxal ñu si taalibe jaajëf Tacko TV xanaa rafetlu seen taxawaay rek tamit li tamit rafet na parce que lu baax ba dañ koy fësal lu baax dañ koy fësal te lii ngeen di fësal nii dara gënu koo kawe lu toll bisu Seydina Muhammad ngeen dugg si ruq waaw ruqaar yi di xool mbokku taalibe yi ñu ñuy waajee bés bi kon tamit ñoo ngi leen di bàyyi ak borom bés bi te bés bi attan na lépp la leen Seydina Muhammad kattanal waaw yóbbu leen waaw fu yàq eggul si barke Serigne Touba jërëjëf ñu ngi lay kon boo soxna yi ñoom it ba léegi ñu ngi si wàññi di defar li nga xamante ne moo di que meew mi comme bu ko defee yaay booy dañu leen di siyaar rek di leen jox seen wàcc waaw doole jaar Baye Fall. mu mel ne dañu a fekk ci waañ bi maanaam ngeen di defar lu mel ne que ni meew ñee ñu ngi ci café gi maanaam tey jii nii bu ñëwee gàmmu Masalik maanaam naka ngeen ko taxawee tey ba mu yegg si fii nii yéen soxna yi. waa di di gërëm ñëpp rek di sant ñëpp di sant Serigne Touba rek lépp Serigne Touba la daal waaw lépp Serigne Touba la daal xam nga dañoo mënewul wax nag si si waaye lépp daal Serigne Touba lépp Serigne Touba la mu mel ne tey jii bisu mel nii dañ daan gis ndaw ñi dañ daan dund saayir si mais léegi tey bisu mel nii ñëpp dañuy sant ku tedd ki Seexu Xaddim boo amee loolu leen di gën a ñaaxaat ndaw ñooñu loolu leen di wax. ah dund Serigne Touba rek waa te te muy dëgg daal waaw dund Serigne Touba te muy dëgg ñun daal ñu ngi ci daal waaw. dund Serigne Touba te muy dëgg yaa booy loo ñuy wax. waaw jërëjëf Serigne Touba rek jërëjëf Serigne Touba waaw affaire bi moom amul xaare. na ci ñëpp nekk rek liggéeyal Serigne Touba rek moo wóor waaw jërëjëf Serigne Touba. mu mel ne kon ni ñëpp rek ndaw ñu doon dund saayir ci bis yu mel nii léegi bis yu mel nii dañuy sant ku tedd ki Serigne Touba Seexul Xadim ndaw leen di ñaax loo leen di gën a mooy xanaa ñu toog rek ba Serigne Touba wàññi leen rek ba ñëw ci bisam bi di ko màggal di def jërëjëf Serigne Touba rek ñu daal ñu ngi saxoo jërëjëf Serigne Touba rek. jërëjëf Maodo a sama cadreur bu doy waar bi ba léegi nee na ñi ngi saxoo jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba kon bu ko defee dañuy daal di tàggatoo waale fii rek mu mel ni dañoo ñëwoon fii ci diwaanu Masalikul Jinaan couvrir gàmmu gi waa Tako TV maanaam leeru xol yi la lumière du cœur sur internet bi nga xamante ni si moom la ñëpp di suivre moom la ñuy safoo tey ñu ñëwoon fii ci biir Masalikul Jinaan jéem a couvrir gàmm gi ak mbokku taalibe yi tey ñuy waat bu defee kon dañuy jéem a yamale foofu di wax ne sëñ Mountakha Mbacké xalifa général al Mouride yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Amdi Moustapha Fall sëriñ Modou fi yàgg te di ñaanal Makki yu fay jàmbaaru seexul xaddim jooju nga xam ne bu gàmm gi tolloo fii maanaam lu ci ëpp moom la moo ci bay waaram kon Makki yu fay dañ koy ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral cëram kon bu ko defee dañuy wax mawludu nabi di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di ziare suñ cadre bu doy waar bi ñu àndaloon tey muy Maodo Ndiaye di ziare Omar DG ñoom laay Samb gaa yi nekk si ginnaaw ñoom ñoo tax lépp baax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba. ومن شفاني أبناء وإن آخرهم ومن أمن أخدم أنت رزق لجنا أنت رزق لجنا أنت رزق لجنا أنت ومن صمت ومكان وولد طيب جمال بأخر سكوت محكم وأدر سكوت وتلامح وفم ساكر تعاح صف وصل آية ورخل الله وليكم وحكم ويكون طيب أمانه وأعطح زاد للطعم وربي وصفي بكر خيطه وأدر سكوت حجمه حلو ومنعوا ومنعوا ومنعوا وكان ساكن الراشد وجعلها والبحر ومن يقوم ومن يقوم ومن يقوم سمع من خلقه ويكون من محفوظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله وكل إمام وشكر لا أعلم والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله سيدنا محمد من الناس سيدنا محمد من الناس سلام يا قد مسبر ما مكن بتشونه تكاري عاشق سيدنا محمد بابا بنسل wante aussi ne ceyta Seydina Muhammad dafa dab Maodo ba tax na ne jàng ko yaa sow Seydina Muhammad loolu la fa tax na ngaa aaje di fàngal di fàngal ba mel ni mu ànd dugal fa yaasin Seydina Muhammad ba ne gongo taw yaramam du laal ba ne أبدون الأرماسي سيدنا محمد إنك الله داك سكين تداك عن دارك تدوكا في الأرض بمبنيان في الأرماسي سيدنا محمد سمسنا كان رأي ومن كل تنسل سمو يعرف ومن الخط ومن الخط في الأرماسي ومن يا أرجال يا أرجال ومن يا أرجال أرجال يا أرجال وأرجال دون أرماسي أرجال تخلنا وما صمت بعدنا كفر صوما بطنا أبانا وحبنا من صنع صمت بطنا يعني صمت صنعان فريم لنا هو لم صنعان

ma enen wonoo tofolnaa kono santuɗanan defo sono mbaro mbaɗinan albana o heɓaɗa ɗumon sana awan santuɗaka ɗoaɗusaa tumnaa jegi tumna kumay ƴoe wotumaa jek tumna kumay ƴoyi sirgin ba sëñ Saliou Mbacké te adu yaaka maa ñëw wax naa jëtu dina ko may jaay sama sëriñ ba sëriñ Saliou Mbacké te adu yaaka maa ñëw sëriñ Saliou Mbacké sëriñ Saliou sëriñ Saliou Mbacké sëriñ Saliou Mbacké man def dinaa ñëw te musul baɗe ta ɗingon ɗanɗanon sun tsarin bato su bana ya'yan su gina ɓara'yan su gina ikon wannan ɗan ɗanɗanon sun tsarin bato su gina ɓara'yan su gina ɓara'yan su gina ɓara'yan su gina ikon wannan ɗan ɗanɗanon ശാസ്ത്രാലയം കണ്ടു Thank you. سيدي لولينا وسيدي الله